from today, that's no peace. Satisfaction in entertainment is be be be be be be be be be. bi will bring a man. Ngay mexe, DJ Tuff Tuff Tuff dans les oreilles. C'est la musique qui nous fait rêver. Allez, allez, allez, allez. C'est quelque chose d'exceptionnel. Allez, allez, allez. C'est DJ Teuf Teuf Teuf dans les oreilles. Allez, allez, allez, allez. C'est DJ Teuf Teuf Teuf dans les oreilles. Ah! C'est la musique qui nous fait rêver. C'est quelque chose c'est chaud, c'est chaud, T'appelles ça on, le Eh, salaam salaam eh, di ziar ñëpp eh, di bégee ñëpp képp ku nga xam ne yaa ngi scotse sur la mer bande fréquence 93.5 nga fm di bégg tamit fidèle auditeur auditrice comme mu koy waxee saa su nekk nga fm ak képp ku nga xam ni yaa ngi déglu couleur urbaine bon toog nañ moom mooy nga xam ni bon ñëw ñëw def émission c'était juste peut-être des fois nga génn euh, nekk si yeneen te wala nga génn def ay euh, recherche bon des fois euh, milieu bi moo koy xaw a laaj tuuti mais du sunu coobare bopp noonu lay demee ah di békkee ñëpp di ziar ñëpp. comme ni ma koy waxee euh, saa su nekk il faut gars yi comprendre concept couleur urbaine euh, parce que tamit boo xoolee majeure partie euh, tamit bon mën nañ wax que ni émission culturelle la en même temps tamit acteurs yi nga xam ni bon ñu ngi si mais ñi ma gën a ciblé mooy la jeunesse te bu mu naan la jeunesse mooy bon jeunesse conscient bon ñi nga xam ni seen wàll bu nekk dañuy fësal maanaam ñoom ci li ñu nekk. ak euh, ci euh, li nuy euh, yëngu noonu lay deme ba tey bon si kanam tuuti naa leen wax sama gan bi ma dal mais le plus souvent bon noonu lay demee parce que tamit des fois dañuy dajale actualité yi nga xam ni euh, jot na xew si semaine bi ak euh, actualité bi nga xam ni bon nit ñi euh, dañ koy waxtaanee ñëw indi ko si plateau bi ñu faram fàcce ko bon wax si li ñu si xalaat noonu lay demee. ok comme ni ma leen ko waxee tey Talla Thiam moo doon sama invité bon mën nañu wax que ni moom Talla Thiam mooy coordinateur di MSEK. Euh, de la conversation pour la défense des valeurs euh, républicaines euh, bon si kanam de la tamit signification MSK bon si kanam micro euh, ah. je crois que c'est ma deuxième rencontre avec Moma ah. Euh, tey mooy sama deuxième euh, rencontre ñu toog nii ci euh, plateau bon di waxtaan ci kanam tuuti nañ ubbi micro mu présenté wu waxtaan ñi nga xam ne sant bi ñu ngi déglu couleur urbaine. ok parce que tamit comme ni nga ko waxee tamit actualité la ñuy waxtaanee actualité la ñuy li nga xam ni nit ñi ñu ngi koy waxtaanee ci réseaux sociaux yi des fois dañ koy génne indi ko ci plateau bi. Euh, tamit mën un en même temps bon technicien en communication donc je crois que il est bien euh, approprié pour si euh, yenn tamit bon maîtriser communication ok connection. Yeah. weekend. I'm in deep connection. Yeah. That on. They can it. ok euh, noonu lay demee tey ñaari thèmes lañu dajale mais après ci biir thèmes yi dañuy indi benn euh, sujet bu nga xam ni c'est d'actualité parce que tamit bon nit ñi euh, ñi ngi koy wax avant boobu noonu xam naa élément bi dina ñëw mais dañuy déglu jëngal bés kanam moom ma introduire ko mu présenté wu waxtaan ak askan bi moo may fàttali nit ñi rek bi mooy sunu deuxième rencontre maak moom si plateau bi parce que bon souvent ay waxtaan yu am solo la ñuy jot waxtaan yi mooy bon waxtaanu société la li nga xam ne day yee askan bi non lay démé acha Dallas radio ok non lay demee comme nous ma leen ko waxee sànq euh, Talla Thiam moo doon euh, sama invité euh, ci couleur urbaine coordonnateur du MSEK de la convergence pour la défense des valeurs républicaines noonu lay demee kooku mooy Talla Thiam léegi ñu bàyyi ko mu waxtaan ñi nga xam ne bi la fréquence 93.5 FM. wa taala wa ngi euh, di nuyu mboolem ñi déglu yépp fii ci 93.5 point FM à travers le national et l'international di nuyu sunu technicien bi ñu fi fekk. Euh, di ko baax sëñ Maam Góor di nuyu aussi sunu sœur Adja Koyaté di ko wax rek mu nuyu ñu sunu frère euh, sëñu xarit sunu sëriñ muy Mohamed Koyaté moom aussi di sunu soppe lool di kenn ci ñun ñoom ñëpp ñi ngi leen di nuyu di nuyu sunu papa di directeur rajo bi muy monsieur Diop Mahmoud Diop. Euh, vraiment di rafetlu liggéeyam ak taxawaayam di nuyu sëñ Badra ak euh, Thiandoum ak mboolem euh, personnelu rajo bi yëpp. Hmm. en fait ensuite di nuyu wax dëgg yàlla autorités yi dëkk bi religieuse comme politique religieuse mën nañ cee tudd ku mel ni sëñ Makhtar Mbacke mu yóbbaale mboolem ñi nga xam ni ay kilifa lañ ak imam yi ci dëkk bi. Hmm. donc politique ñu nuyu monsieur le maire Maguette Wade ak mboolem ñi nga xam ni ñoom la seqal dëkk bi yëpp di nuyu aussi au niveau international. li nga ci laaj léegi muy waa MSEC international yëpp maa ngi leen di nuyu. Mm. waa Bologna ku mel ni ki sunu baay Cheikh Fall Bologna ñu ngi koy nuyu ak sunu baay Talla Wade. Mm. depuis Bologna ñoom ñëpp ñu ngi teewlu émission bi di ko ànd ak ñun. donc ñu ngi nuyu aussi képp koo xam ne rek mi ngi dégg sunu baat Serigne saaliwu sama Serigne quartier général Bass ñu ngi koy nuyu di nuyu sunu waa kër eh, sama papa ak soxna si ak mboolem eh, tout tànk yi di nuyu aussi sunu waa kër fële ca Mbambara mm. waa kër Baye Mor Wañaan Thiam ak waa kër Serigne Serigne Cheikh mi ngi nga xam ne mi ngi nekk ci suñu wet moom suñ Mour Matar Fall moom it ñu ngi koy ziare. Hmm. di nuyu ñëpp rek Tane Fatou Diop aussi ak sama goro yi ne fii donc ñu ngi leen di ziare ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn lébu bambara quartier ngaay jiite ngaay mexe partout daal. Hmm. bàyyiwuñu kenn ku lim juum peut-être boo juumul aussi di nga desal. Hmm. mais surtout nag ñu ngi ja rafetlu taxawaayu personnelu ngaay FM seen liggéey maa ngi koy. rafetlu bu baax bëggoon naa xam euh, signification MS. Euh, euh, merci donc on va rebondir un peu sur la question qui concerne convergence pour la défense des valeurs républicaines donc nous sommes en tant que jeunes. Euh, nous sommes aussi des gens qui s'activent dans le développement donc de la ville, mais aussi dans le développement du pays de façon générale. Mm. Donc le MSEK, c'est un mouvement de soutien, c'est-à-dire M mouvement MS soutien e, e, e, donc e élection K Karim. Donc c'est un mouvement de soutien pour l'élection de Karim. Ça c'est un c'est un volet politique. Il y a un autre aspect qui est le volet société civile. Mm. Donc c'est la convergence pour la défense des valeurs républicaines. Actuellement je suis le coordonnateur. Mm. Pour ce qui est de MSIC aussi je suis le coordonnateur. On travaille sur le terrain. On est en parfaite collaboration avec beaucoup d'autorités, mais surtout avec ceux qui sont dans les villages et ceux qui sont dans les alentours de Meké. Mm. Voilà. ok mais juste tamit gars yi foog ñu comprendre concept euh, émission bi euh, parce que tamit bon élément yi ni euh, teg ni actualité la maanaam ci web bi lañ koy jëlee mais ay day doon ay kii yu sûr bon moom la ñuy teg léegi da bon premier élément bi mooy maanaam temps yëpp gars yi ñu ngi waxtaan ci Akon mhm. ak terrain boobu ñu ko jox mhm. tamit pour mu teg projet boobu léegi. Euh, euh, bon Karim Khouroum Khakh gars yi xam nañ ko euh, souvent bon nitu deug la mhm. bon il n'est pas contre le projet Décon mais nee da ko war a le si yoon loolu juste ben volet la rek après ñu jaar ci thème bi nga xamni moñu moo ñu mais légui dañ koy déglu après bon yow analyse bi nga si jotta a xalaat nga wax ko légui jox ma élément bi. li ma li may wax si Décon projet bi projet bu nice la limuy woté idée bi idéologie bi ni ñu koy doxale lu nice la lolou kenn mënu ko dindi kenn mënu ko tindi kenn mënu ko contre tey Cheikh Omar Diagne ak euh, Imam Kanté mi wax contre ñu lool il faut Sénégalais yi dellusiwaat ci loolu ko xam ne ñun contre ñu lool projet bu rafet la jox nañ ko Econ City mu ñëw indi day indi monnaie bu tudd Ecoin sa xam nga euh, teg fi jor ay fi boppam et tout installé ko def ci ay yooyu yëpp c'est extraordinaire mais le problème mooy dañu nekk si dëkk boo xamante ne nii dafa am ay réalité yu fi am Econ il n'est pas un américain c'est un Saloum Saloum Alioune Badara Thiam la tudd du yaa mooy de bi muy dem Sénégal bi muy jógee Sénégal di dem Maroc di dem du moins si États-Unis ngeen baal ma autant pour moi di dem États-Unis fekk na moom am na yenn âge au moins am na 8 ans 10 ans papa mi fait ay ñi nga ay réalités yoo xam am na lu mu xam tuuti Sénégal te doon dem di ñëw xam na lu xew Sénégal Sénégal dafa am lu fi am ay réalités fi nekk léegi Akon su ñëwee ñëw ne moom dafa bëgg ñu jox ñu jox ko city ñu jox ko benn bërëb ay 800 hectares je sais pas xam mu pare pour def ci ay milliards et milliards am ay ay ay partenaires yi ko topp et tout jàppale ko pour mu investir ne dafay def lu tout dafay def tout dafay def dafay def dafay def loolu mais dafa am lo xamni moy mooy base Sénégal ñun nous sommes pas aux États-Unis d'Amérique nekkuñu sax nigeria lay wax sax États-Unis day sori nekkuñu Éthiopie dañu nekk dëkku Serigne Touba dëkku Baye Niass dëkku Limaamu Laay dëkku jàngu bi Sénégal dina dafay am doole neexut waaye dëgg la amul benn dëkk booy leen di fekk ay màggal Touba ki gàmmu amul Sénégal dafa am loolu nga dem fekk Touba Touba nekk dëkk boo xam ne depuis ñaata at mi ngi existé am xalif am koo xam ne dafa ñëw woote benn confrère yi tëgg ci njabootam tëgg ci ñu topp ko nga dem Tiwaawan fekk fa lu mel noonu nga dem Kaolack fekk fa lu mel ñu bind ay xasida bàyyi fi jàngale tarbiya nit ñi moom ay Fass Touré am Sénégal dafa may réalité quoi am ay daara alxuraan am loo xam ne daf fi nekk am ay imam am ay xalif ay xalif moom bi mu ñëwee dem na si yenn xalif yi seeti leen voilà léegi su ñëwee da day teg loo xam ni cité la bu bees wala loo xam da koy teg rey ba peut-être pour tourisme wala yaa xam moo xam sénégalais la war nañ ko jox sax lu ëpp 1000 hectares fu ko neex na def nga dem ci digg gi ku neex mu def lu ko neex mais na fa def loo xam ne day méngoo suñuy valeur émergence mu àndul ak valeur ñun doyewuñu ko dara nit ñi contre ñu école Cheikh Oumar Diagne euh, Imam Kanté ji profite ci occasion bi di remercier Imam Kanté di ko baalu ak aussi mais pour wax ni ñoom amuñu intérêt pour contre école lan la leen yaaxal li ñu bëgg mooy réew mi dafa am ay réalités yu fi nekk ñun boobu léegi ñu nekk di xeex pour les valeurs di xeex pour dindi fi prostitution di xex pour dindi fi njaayum préservatif ñi publicité sangara ci ñi publicité partout si mbedd bi di xex pour dindi fi luy dindi valeur yi donc lolu bu nit ñëwé né da fay ñëw tek fi ben cité te xamuñu cité ñu né cité yi cité bi lay autonome indépendant nga xam ne day mel genre état ci biir ci biir ci biir république ci biir république bi ñu né ah lolu lañ wax j'ai bien suivi et kon maa ko seetaan mu ko France 24 né affaire day am coince day am woné bopom day am police bopom day am day am liiw bopom c'est-à-dire day am ay réalité bopom lépp fofu lolu mais ñun en tant que sénégalais

mais lu tax mënul dem ci Serigne moutaha yalla fi yag te wér lu tax mënul dem ci xalif tiawan xalif Niassène lu tax mënul dem ci imam yi association Ligue des imams lu tax mënul xool ñuy xeex valeurs Sénégal mu ñew tàllu leen projet bi wax ñu lan lay wottoo valeurs yi sunu doom yi pour ëllëg pour société bobu non pour pour euh, xam nga nu mu tudd cité bobu non Akon City c'est très simple sinon il a le droit c'est un sénégalais ku nekk am nga droit ñu investir sa dëkk. mais laaj bi ma lay laaj est-ce pour ñun la. mais fa la jëm xam nga ñun dañ nekk si dëkk xam nga dañ nekk si dëkk boo xamante ni 75 de la population neexul waaye dëgg la yoru ñu bay fall xam nga lu ko yor ku yor moy ku mag yow moy ko xamni kontam gatt gatt 15 millions nga fa yo xamni doyo ko dara lool moy ku xawa yor te day yor kërëm yor yépam lool moy ku yor ko xawa yor te fi ñi fi yor lool yépp bo xolé bu réy 100 lañ 90 nga xam nga fuñ koy jëlé ya mako gëna xam ay door kat lañ donc dama la wax ci état bi lañ koy jëlé te dañu lor askan wi dama ni ñun mu ngi nek ay bado la nek réew bo xam réewum bado la école ñu def ci cité bo xamanteni ku ne gis nga cité bi numu la mu ne loolu fi bëgg def neena loolu mu fi def ñun alal bi xeyna sax alalam la xëy mom moom moo dem lijjanti ay bayeeram lijjanti ay kéem ay fonds et tout xëy mom bëgg na sax peut-être pour ñi nga xam ñooy dund luxe ñu dund ko quoi mais ñun nañu fekk si suñu réalité dëkk comment fa ma lay waxee nañu fekk si suñu réalité dëkk quoi na ñëw fekk si suñu dund xamni Sénégal la nek dëkku Serigne Touba la nek xamni ne dëkku Baye Niass la comprendre nga mo xamni ne dëkku jàngu bi la nek dafa may catholique am ñun ñu gëm ño xamni dafa may église ay nit yo xamni dañu may réalité yu ñuy dund dañuy dund seen diiné am ño xamni ne dañuy dund seen seen diiné ay musulmans tu vois ce que je veux dire donc man li ma man li wax yëpp moy xola baadoola yi Sénégal kenn sóoraale wu leen gis tefes bi rek ñuy jaay nga xam ne bana bu jëlee ne hôtel bi jox nañ ko tefes bi rek teeru bi nii rek ngeen baal ma ci na ko léegi bu ñu demee jox te euh, Akon beneen suuf boo xamante ni mujj gi police bi ne la doo sax jege ay dañ lay mettre en quarante dañuy fépp la xam yan réalité moo fa xew rawatina ñu am seen mën a moné mu am seen police bopp am seen lepp bopp foofu noonu c'est loolu te loolu fa grave jàmbaar donc sénégalais man man man j'invite les sénégalais pour ñu jéem a déglu nit ñi xel Cheikh omar Diagne nañ ko déglu ak xel amul intérêt pour xeex école Omar Imam Kanté nañ ko nit ñi dégloo xel gars yi bu ñuy xeex xeexuñu école la personne d'école importe peu tay on peut pas barrer la mer avec ses bras c'est-à-dire ñun amuñu jotu école quoi dañ koy ñaanal sax mu réussir mais na réussir ci luñ méngoog Sénégal ñu nekkunu Amérique Amérique gourdière yaa ngi koy toj nekkuñu Nigéria nekkuñu Éthiopie dëkk yooyu ñu ngi yàqu nañu te li ko yàq mooy mooy nouvel ordre mondial bi nga xamante ne am seen réalité bëgg ko imposer yëpp yor i idéologie ci bi ne ñoom lii la àdduna bi di ñu ngi a dee góor jigéen yi lu ne mi ngi koy dugal ci code de la presse fu ne dañuy wax moom cest à euh, li may wax rek ci école mooy euh, na ñëw ak projet yi ñoo dem présenté ko sëriñ si quoi ak imam yi ak prêtre yi yi ñi sam valeur yi dem présenté leen projet bi wax yan xeet nit ñoo fay nekk ak lan moo fay am foofu noo ñëw aussi di poñe benn école ne ko defal dispense par force te bi ne fi nga koy fay weer bu jot école fayoo ko juróomi dërëm moom moo dem ci àll bi lijjanti ay xaalisam lijjanti ay fonds ñëw léegi boo ñëwee bàyyi ki ngay fay weer bu dee jox ko 4 4 Macky Sall ba muy Mm-hmm. ok euh, noonu lay demee élément boobu noonu déglu nañ ko euh, euh, muy Abdou Karim Gueye muy muy Abdou Karim xu bon xurum ah. ok noonu la tudd bon dañ ci def benn bref bu ndaw rek benn bref bu ndaw ak li si jot a comprendre ah. bon nga wax ñu ko parce que tamit bon bon kiiwul contre projet Akon boobu. contre projet Akon boobu parce que am na ñu si jot a wax mais day wax que ni ñooñu li wax garaawul. Euh, projet bi da ko war a maanaam soumettre kilifa dine yi mu wax réellement lan la fa euh, euh, bëgg a bëgg bëgg def parce que je crois que tamit est-ce que du Sénégal Touba rek moo fi doon pro propriété privée bu nga xam ni ñoom ñoo ko moom léegi supposons moom mu ñëw Sénégal sénégalais la bien que tamit d'origine sénégalais mais États-Unis bon la yaroo tamit mais itam buñ buñ duggee ci réalité bon ak euh, moom ni muy doon dundee mën nañ wax que ni bon c'est un gangster euh, peut-être bon am na benn côté bu nga xam mi ngi doon wax euh, bon dundam bon état bon yooyu yëpp bon bon léegi ñu faram-fàcceel mais man li maanaam li may jot a tënk mooy comme par exemple dafa waroon dem si kilifa diine ku si nekk. Euh, mu wax projet bi lii lii ñu xam réellement ba xam moom projet bi mu indi est-ce que tamit méngoo na suñu euh, réalité euh, dëkk parce que tamit le fekk nga am sa mën a bopp am sa police su bopp bon bon leneen la léegi yow ñu bàyyi la wax sa xalaat. jërëjëf monsieur Baro ñu ngi remercier ki intervenir aussi nekkul kenn ku dul doomu sénégalais moom it joxe xalaatam comme ni mu gisee selon ses propres visions selon selon ses propres interprétations. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit est recevable à 100%. Donc, mais je salue sa réaction parce que nit bobo Ketireo, à chaque fois, que nous les présenté, vous avez la, donc le devoir même de s'exprimer sur des points qui te semblent peut-être obscurs. À, travers ce qu'il a dit, The New World Order, c'est le nouvel ordre mondial. C'est un, c'est un phénomène qui a touché tous les secteurs qui a touché toutes les nations et qui a touché toutes les populations mondiales. Donc quand on parle de Icon City, Icon City, moi j'ai quatre documents sur ça. Icon City. Donc la seule chose que je me pose, je suis d'accord avec lui sur un seul point. Moi, le fait que Icon City, bu Tibir Sénégal Bok ci région de Thiès nekk ci biir département de Mbour bëgg a amaat beneen autonomie boo xam ni c'est comme si benn il la wala c'est comme si day nekkaat beneen réew ci biir réew mi foofu je suis tout à fait d'accord ak li mu wax foofu anduma ci parce que su dee dafa bëgg am autonomie ci ban côté su dee autonomie financière c'est pas grave parce que les économies s'interposent et donc s'échangent les uns les uns les unes les autres su dee autonomie judiciaire nag ça devient dangereux parce que la justice selon ñun suñu justice sénégalaise dafa am lu muy bañ dafa am protection mœurs ak yenn euh, comme nous le ko protection des valeurs comme li may li convergence pour la défense des valeurs républicaines nous avons des valeurs Sénégal dafa am ay valeurs valeurs yi ñu am day wu valeurs yoy nga xamni les industries les lobbies yi nga xamni pour the new world order le nouvel ordre mondial mondial ces gens-là ont des principes et des valeurs qui s'opposent à notre raison pour laquelle Amna, amna am que ku nekk Allô. Euh, ligne bi ñu jël ko allo allo sëñ bi na def FM Wa ñu ngi lay dégg ma ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant ma xoolal euh, am am na am na rajo. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant. waa déglu am na rajo bu nekk sa wet da koy wàññi pour dégg-dégg bi mën a leer. Serigne Thiam papay Talla Thiam moom mu toog. Euh, Talla dafa. waaw wàññi rajo bi rajo bi nekk sa wet wàññi ko wala nga fay ko. waaw ma ne. rajo bi nga dendal. ma ne. waaw. ma ne. bisimilah. dama bëgg féliciter leen bi ngeen nekk dafa sensible. Mhm. waaw. thème bu doy waar la boo xam laal ngeen mbóot mu mat a laal. waaw. ay kon suñu mbokk la mais je vous fais comprendre que li mu fi bëgg a dugal. Hmm. baaxul santul yàlla. Hmm. ci biir dëkk. Hmm. ñu wax nga yor sa mëne bopp yor sa police bopp kooku c'est comme si on on nous suñu forme. te loolu la américain yi entamé di wut bu di ko jaar ci moom. Mm-hmm. maa ngi leen di féliciter di leen sat di leen gërëm ci thème bi ngeen engagé. Mm-hmm. yal na Sénégalais yi nag comprendre fi ngeen di ak jaar ak fi ngeen jëm. merci na jàppale ci daraja borom Tuubaa jërëjëf waay. jërëjëf jërëjëf mën nga mën nga ñoo baaxee tur bi mën nga ñoo baax Sëriñ Thiam sama papa la. waaw kon baax na jërëjëf euh, ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal sunu borom yàlla guddal fanam effectivement comme non ma ko peut-être ci point bobu lañ nekkoon ñu ngi koy jaajëfal diko ñaanal suñu papa la ku baax macha allah euh, muy point bu am sa solo c'est-à-dire fofu lañ tolloon. c'est-à-dire bu defee bu dee dafa nekk implantation bo xamni ça sera une autonomie judiciaire. am constitution boppam. mais ça devient dangereux. pourquoi ça devient dangereux des sénégalais qui sont au Sénégal ñoy duggat fofu mu melni lolu day dénat benen réew ci biir réew mi comme li kii wax léegi je ne sais pas un rappeur ou quoi mais il a parfaitement raison ci côté bobu Moi, dans ce cas mën nañ fa gis duma prédire na parfois parce que bul togn mënoo ni projet bi ñëw na rek ngay tuddu ay baatu goor jigen wala ngay tuddu non non lolu kenn waxu la ni ci. man duma ko wax da ngay maandu parce que éco néewul ni dama koy def rek goor jigen ni dina ñëw non. il faut être prudent dans la vie, ce qui est devant nous, il faut laisser le temps nous donner la réalité. Donc la réalité, la, vraie, donc l'image réelle, réelle des choses. Mais buñ prédire. maintenant nañ ni ragal par exemple mën naa taxaw vraiment et eh, qu'on li muy bëgg a def suñu mbokk la sénégalais mais est ce que réellement les gens sont def amul lu point d'interrogation je suis d'accord deuxièmement est ce que réellement su ami autonomie bi mu lobby franc-maçon wala ay lobby góor jigéen du ñu ñëw foofu di leen difa def lu leen neex te kenn du ci mën dara. deuxième point d'interrogation léegi nga toog nag ne ay eh, kan est-ce que réellement question yi mën nga nu ci tontu su tontoo nga xam ni fi mu jëm mais bul tëb tëb rek dem ci plateau dem ci rajo Sénégal du ñu gaaw ci loolu léegi. bu ñu gaaw di wax communication dafa sensible. te ñu bëri danoo defe ni communication. mooy lu jug rek nga wax ci non il faut s'abstenir parfois mm. sur des faits yo ok moom moom sax mom sax donul sunu euh, sujet mais comme que fait d'actualité loolu temps, ñu indi ci plateau bi mais ñu bari ñi ci wax. Mm-hmm. ça veut dire que am na ñu nga xam ne dafa lëkkaloo ak ñoom parce que donul projet bu nga xam ne xaalisu boppam la am na ñu nga xam ne dafa lëkkaloo ak ñoom ñooñu financé ko léegi nag ñooñu mu lëkkalool mm-hmm. peut être am na ñu nga xam ne peut être dañoo bokk si ay lobby wala yeneen ak yeneen mais moom donul sax suñu sujet mais comme que tamit nit ñi dañ koy wax tamit moom nañ nañ si brosse tuuti après ñu jàll ci leneen merci donc entre parenthèses pour terminer parce mm. que on a presque 30 minutes d'avance donc si côté boobu li ma si wax rek mooy nanu bàyyi autorités yi nga xam ne ñoo saytu ñoo war a saytu projet bi mm. ñu def seen liggéey ak moom mm donc ci kaw loolu may ñaan autorité yo comme ni ko waa waxee ñu imposer dañ ko imposer parce que ay eh, Akon ni fi say yeneen indien yi di ñëw ay chinois di ñëw di implanté wu mais Sénégal léegi am na phénomène bu garaaw bu fi am mm. ay étrangers di ñëw di jënd souci si mm. léegi xoolal problème foncier ni mu bëri. Mm. ñooñu tey bu ñu amee sañ-sañu ñëw Sénégal. Hmm. di fi jënd ay hectares moom sax kenn contrôle maanaam projet mais na leeral askan bi. wax leen euh, réellement fan la jëm comme kii ni mu ko waxee dem si kilifa diine yi. Mhm. yeneen ak yeneen wax ak ñoom je crois que euh, loolu mais fierté la fierté la mhm. en tant que tamit moom mu mhm. dem. Euh, indi ay bailleurs ñëw pour investir euh, dëkkam parce que tamit ñun tam bëgg nañ lu taaru euh, lu rafet. Hmm. li nuy dem di xoolee États-Unis feneen ak feneen moom suñu dëkk. voilà pourquoi pas sax ñoom benn Hollywood. bi ñu xam ni bon. nekk na Sénégal ak yeneen ak yeneen. très bien loolu lépp c'est hmm. mais foofu laa jëmoon c'est-à-dire da nga ma dog. Hmm. mais foofu laa jëmoon. c'est-à-dire ñun même président. balaa muy def leen day consulter kilifa diine yi. c'est président mooy consulter kilifa diine waxantuma la Donc, lui, il a l'obligation, je vous dis, il a l'obligation de prendre son projet. dem Touba dem Tivaouane dem jasan, dem dem Bolem kër diine yépp mu ne fi bëgg def kilifa diine it a ko laaj fi bëgg a favoriser góor il favoriser par exemple les sectes hmm. mais on parle de franc-maçonnerie mais il y a beaucoup d'autres sectes yu nekk ci qui déjà hmm. avec ce régime hmm qui peut-être euh, bon bon lu bari jafé na danaka yow jafe lu ko dal ndax buñ togué ba Dakar préfet bi jël ben arrêté diko bind ñëpp diko gis ba ñëpp ju casque donc lolu ça veut dire que euh, ñoom fasa yombal nañ lu bari régime bi fi nek té lolu ñu yombal wax dëgg fa yalla dafa lor sénégalais ndax ñun dafa am lu ñuy protéger. suñuy aada suñuy cosaan dafa am gëm-gëm bu ne ci ñun. ñun fo fo laaleeb sénégalais. da ngay dugg ci kër fekk fa chrétien. murit tijaan ñoom ñëpp ñu bokk benn bool di añ mais benn mbir moo leen lii mooy ñun ñëpp ay woy gëm lan tey dañoo gëm kan yàlla ñoo ñu nga xam ne tey ñoo nekk ci lobby du nouvel ordre mondial ñoom daa daamaat keneen ku nu gëm te keneen kooku ñu gëm seytaan la te seytaan s'oppose à Allah kon ñun su suñu amee lu ñuy préserver képp ku ñëw di def investissement nous avons le droit quand même ce que sa investissement bañ a impacter ñun suñu gëm-gëm ak suñuy aada. ak suñuy valeur. foofu laa doon daanelee moo tax ma ni point bi waa ji wax ni Akon dafa war a dem ci kilifa diine yi man loolu du ma ni sax dafa war a dem dama naan c'est une obligation. mais ci kaw loolu aussi nañ rafetlu idée construction defar lu baax pour que le Sénégal puisse man du ma wax émerger puisse avancer. Mm. parce que le terme émergence dañ koy employer parfois te xamuñu réellement lan mooy émergence. Mm. l'émergence de quoi de la pauvreté. Hmm. depuis 2012 ak léegi mom lañ fi sétlu l'émergence de quoi de la tuerie nit ñi rayaté du jeex l'émergence, l'émergence de quoi du vol loolu lañ fi gis. Hmm. émergence dañuy xool fan la terme bi di jëm ñu xool nag contextualiser ko par rapport ak réellement li ñuy gis man de seetlu bi ma am depuis 2012 ak léegi. Hmm. ñett yooyu de gis naa ni émerger nañ. la théorie, le vol. et tout ce qui touche les aspects néfastes nga xam day yàq suñuy valeur day yàq li nga xam ni. Mhm. moom mooy comportement xale yi. loolu mhm. moom émergé na. Mhm. mais est-ce que réellement nag sa liggéey émergé na sa xaalis est-ce que émergé na par exemple. sa point économique est-ce que émergé na santé bi est-ce que émergé na et cetera. donc le concept d'émergence. Euh, il faut que ñu